personne de Ousmane Sonko moom si boppam man su ma nekkoon président Macky Sall il va être président de la République mais son Sonko dama koy tegal tout simplement des discours d'État il a beaucoup de limites par rapport à l'État ah bon beaucoup de limites par rapport à l'appareil d'État Ousmane Sonko maîtriser wul géopolitique maîtriser wul géostratégie xamul lan la donc jarul ngay nekk fii di sonal nit ñi ci loo xamante ne en réalité amul sens Adji Sarr moo ko porté plainte loolu juridiquement on peut le régler mais sans pour autant ñu politiser ko c' est là où est de Benno Bokk Yaakaar dafa mel ni tey procès Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko on a paralysé le pays pour des futilités jaru ko te lii yëpp Benno Bokk Yaakaar moo ko def et il ne fallait pas. donc si je si je si bien euh, tout toute cette affaire Adji Sarr Ousmane Sonko c' est une manœuvre c' est une manipulation de Benno Bokk Yaakaar yow loolu nga jàpp. jàpp ne manipulation de Benno Bokk Yaakaar la yow da nga bëgg jiite suñu réew état daf lay topp ci lu fi ngay dem. ñi ngay waxal lépp état daf koy topp te loolu c'est pas contre toi parce que man exemple laaj man lu ne def nañ ma ko te je pense que def nañ ma affaire yoo xamante ne defuñu ko Ousmane Sonko man on a retiré mon nom du fichier national carte d'identité mënu ma ko am waxuma ko fenn pourtant xuloo ma xeexu ma fu ma doon dem RG yi dañ ma doon topp bi ma defee émission ak yow test boobu foofu la yam des autorités de l'État moo appelé voilà ne ma ñun li ñu doon xool bu fekkee ne lu lëndëm la ci yow on sait que non engagé de ta propre kenn poussé wu la nga def li jeex tu vaques à parce que état bi yow intéressé woo ko yow da xëy parce que inspecteur des impôts et domaines musuma gis inspecteur impôts et domaines bu démissionné comme Ousmane Sonko ni mu démissionné. dañ ko dàq mais topp ko. il a pas démissionné dañ ko dàq. waaw man damay jàpp ne rek en tout cas def na loo xamante ni moo ko poussé ba nit ñi ñu daax ko bu fekkee dañ ko dàq. dañ ko dàq voilà moom moo dem porté wu si ay combat yoo xamante ni gëm naa ne amul peut-être inspecteur des impôts et domaines bu ko def. donc ci biir loolu noonu nag ils ont jugé nécessaire effectivement de le libérer parce que mënoo nekk aussi dans la fonction publique ngay porter yenn type de combat dafa mel ni man li ma def rek ma bëggoon nekk armée di ko def ça marche pas juge dem ba mu demee ci biir magistrature ba gis loo xamante ni moom peut-être d'accord ci il est parti donc yooyu boo ko defee nag nga sóobu ci langue politique mais état daf lay topp pour la sécurité des Sénégalais loolu yoon la moo tax man la defuñu Ousmane Sonko lu ñu deful fii kenn Idrissa Seck lu ne ko Abdoulaye Wade lu de l'État